أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere kitaabu tawxid di jël tey buntub ñaar fukkeel ak juróom bunt bi di jàngale maa jaa fil kahaana wa naxwihim bunt bi di jàngale li ñëw ci ak mbuxaaba walla ab gisaanekat walla ab seetkat walla ab pettaawkat mu ne baabu ma jaa fil kuhaana wa nahwihim mu ne alkaahinu alkuhaanu jamcu kaahin wa huwa alladi yuxbiru an gaybiyaati fi lmustaqbal ictimaadan ala alisticaanati bichayaatin nee na ab gisaanekat mooy ki nga xam ne dafay xamal nit ñi ak kumpa lu nit ñi gisul lu nit ñi xamul moom mu ñëw ne daf leen di informer yooyu nga xam ne kumpa la di leen jéem a wax ëllëg luy xew nee na loolu nag moom gisaanekat boobu wala moom seetkat boobu wala moom pittaawkat boobu fan la sukkandiku mooy mu nga sukkandikoo ci seytaan dafa lëkkaloog seytaan seytaane di ko jox ay xabaar xabaar yooyu moom it mu ñëw di ko jox nit ñi mu ne looloo tax sunu borom subhanahu wa taala wax ci suratul jinn ne seytaane yi dañ daan dem déglu ci kaw asamaan waaye nag bi yàlla yónnee muhammad ak léegi asamaan si dañ koy garde seytaane bu ko jege rek ñu daan lay sànni benn jum bu safara nee na tey li ëpp ci xeet wi nga xam ne dañoo dugg ci bunt boobu di nekk ay gisaanekat ay seetkat ay pettaawkat ay njabarkat ñoom ñépp dañuy woote ci xam-xamu kumpa kumpa googu nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala dong moom dong moo ko yeyoo xam ngeen ne tey su ngeen di faral di déglu rajo yi néew na rajo booy jàpp lu dul rajo boobu am na gisaanekat buy ñëw bëccëg am na gisaanekat buy ñëw bëccëg walla guddi di wax nit ñi ay xabaar yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala moo ko moom parce que kumpa la kumpa googu nga xam ne yàlla dong moo ko yeyoo looloo tax bi borom téere bi di leeralal nit ñi tawxiid mu daa di boole buntu gisaane ci buntu yi pour mu leeral ñu ko ba sunu tawxiid mën a wér ayuha al ahbab arada al musannif an yubayina fi hadha al bab ma jaa fi xaqihim wa xaqi man saddaqahum min al waid loolu tax sëriñ bi daa di ubbi bunt bi pour leeral ñooñu ñu wax te muy seetkat ak gisaanekat ak buxaabakat ak pettaawkat ak ñu demee ne ñooñu lan la islaam wax ci ñoom waaye ku leen di dëggalit ak ku leen di seete ku leen gëm yow it lan la lislaam wax ci yow kon mbir yi ñaar la moom waa ji ci boppam di def loolu yàlla tere ak jullit bi nga xam ne pas-pasam matul wérul xamul fu mu war a teg tànkam ba mu dem di seeti ab gisaanekat walla ab seetkat walla ab buxaaba looloo tax mu ne baabu ma jaa fil kuhaani buntab la ñëw ci ab gisaanekat kuy jéem a informer nit ñi ëllëg luy xew ay min a taxliis al waid ci tëkk bu dëgër bu tar bu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy tëkku gisaanekat boobu pettawkat boobu ñooñu ñoom gisaanekat yi ak seetkat yi ak rimmaalin mooy ñi nga xam ne ñoom suuf la ñuy jal def ci ay pax di seete suuf ñooñu tamit ci lan bokk mbokk yi alxuraan ak ñuy wax ci suratul an'am aya 128 yàlla mu nañu ñooñu di seet ak di gisaaneeg di pettaaw ak ñi mel ni ñoom seytaane mooy seen kilifa borom bi nee na wa yawma yaxshuruhum jamia fàttaliku leen bis bu ma leen di dajale ñoom ñépp su boobaa ma daal di wax ne yaa maasaral jinn ee yéen mboolem jinne yi qad istaksartum min al ins yéen de yéen a bëri loon ay wax ci kaw nit ñi gis nga seetkat yi ak gisaanekat yi du ñoom dañuy deme seeni xelu bopp waaye dafa am ñu ñu lëkkalool wa annahu kaana rijalun min al ins yahuzuuna bi rijalin min al jinn dañoo am ñu ñu lëkkaloo dégg ngeen fii tey yàlla mu ne yaa ma'ashara al jinn qad istakthartum min al ins yéen day bëril ngeen ay wax ak jëf ci kaw nit ñi mu ne wa qaala awliyaa'uhum min al insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها yow yàlla bi leen yàlla waxee loolu ñoom lan lañ tontu ñu ne yow yàlla wa qaala awliyaa'uhum min al insi ñoom seeni ñi ñu aliyeel nga xam ne ñoo leen toogaloon ci kaw suuf ñoom seytaane yi dafa am yu leen fi nekkal ñoom la ñuy lëkkalool di leen jox information yi gars yi di joxe waa ji day jékki-jékki daan ne nangam mooy am fu mu ko jële dafa am ku ko wax ku ko dee ci jinne yi jinne yi fan lañ jëlee information boobu mooy dañ doon dem di déglu ci kaw asamaan bu nu déggee yàlla ne nangam mooy am ñu ñëw yokk ci lu leen neex loolu moo tax borom bi mu ne seeni kilifa yooyu nga xam ne ñoo leen toogal ci kaw suuf buñ demee ba ci yàlla dañuy réccu ne yow yàlla ñun ak ñoom ñun nit ñeek ñoom jinne yi kenn ku nekk ci ñun am na lu mu jëlee ci sa morom kenn ku nekk am na foo féetewoon sa morom am na loo bànneexu ci moom am na lu mu la defal am na loo ko defal mooy baat bi yàlla ne rabbana stamtaa baaduna bi baad kenn ku nekk ci ñun am na ku bànneexu ci moroomam léegi nag yàlla mu ne jot ngeen wa balagna ajalana alladi ajjalta lana léegi nag diggi leen yàlla joxoon ñoom nit ñi jinne yi mu ngi nii teew na mooy nangami at la ñuy dund daal di dee dajale ci yàlla subhanahu wa taala léegi nag digg boobu jot na lu xew yàlla daal leen di dajale ñoom ñaari mbooloo yooyu nit ñeeñu doon lëkkaloo seytaane yi xaala yàlla mu ne annaaru maswaakum yéen ñëpp safara mooy seen kër bu yemoon foofu rek muy jàmm waaye mu ne xaalidina fiha foofu la ñuy sax illa ma sha allah ndare mu neex yàlla inna rabbaka xakimun alim yàlla ku xereñ la ku xam la ku xereñ la waaye ku xam la moom yàlla tabaraka wa taala bunt bi muy buntum njabar ak gisaaneeg seet xadis bi ci njëkk mooy xadis bi muslim solo mu jële ko lenn ci soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne rawaa muslimun fi saxiixi am baadi azwaaji nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal man ataa arraafan fa saalahu an shay fa saddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salaat arbaina yawman yenent bi alayhi salaatu wasalaam soloo na wax na xadis bi muslim soloo ñu ko muslim mu ngi ko jëlee ci lenn ci soxnay yonent bi boroom xam-xam yi nee nañ baadu azwaaji nabi lenn ci soxna yonent bi ñu ne hiya xafsa bintu umar ñu ne xafsa la xafsa moo nettali xadis bi kuy xafsa mooy doomu omar ibnu alxataab kan moo wax wax jooju abu mas'ud athaqafi moo ne baadu azwaaju nabi nee na xafsa la kon sunu yaay xafsa moo ñu nettali wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man ataa arraafan képp ku dem ci seetkat wala gisaanekat wala pettaawkat wala ab buxaaba fa saalahu an shay mu dem ci moom laaj ko dara te dama bëggoon tukki nga seetal ma yoon wi xam nga démb lu nu dal danoo nekk ci biir tool bi rek benn waaye daal di ñëw nuyoo ñu fay ko mu ne dafa am gunóor dafa ma bëgg ngeen may ma ma dugg ci tool bi dafa am gunóor gu may seet ki ma nekkal moom daal yaakaaroon ne sax ci étudiants yi la nga xam ne yenn saa yi dañuy def ay mbirum science di ut ay affaire nangam nangam yi kooku ne ko waaw waaw bisimilah duggal ba caagale kooku ne ko loo koy dee mu ne dafa am gàllaaj gu ma ko bëgg kooku ne ko tax kaay kaay kaay ñun amuñu gunóor bu ñuy def gàllaaj gunóor looy dee gunóor mu ne dama koy def ci benn gàllaaj gàllaaj laa koy dee gàllaaj di ree nag gàllaaj ñu ne ko kaay ñun amuñu gunóor bu ñuy def gàllaaj génnal mu daal di génn xol ab jullit laa ilaha illa allah ay waay tey war nañ xoolaat suñu bopp te gis nga mbir yooyu danger bi mu danger buñ la laajoon yëf lu nit buñ la laajoon ci nit dara di nga ko uti lu tax nga koy uti mooy pour yow nga am li nga bëgg moo tax ngeen di gis ñuy rey ay dof di jël seeni resak di rey ay puune di kenn xamul dem ci armée yi di wut ay yaxu nit ak ay bëñu nit ak gis nga ñiy sang néew yi ci armée yi ci ci morgue yi ñooñu xam nañ li may wax da ngay sang ba pare rek nga gis jigéen di ñëw ci yow ne la ma salaamaaleykum jàmpe bi ngeen doon sange néew bi laa soxla wala benn morso rek ci li lu laal néew bi wala wuñ gi ngeen doon ñëwee mbalaan mi wala mbalaan mi bu amee lu ci des ngeen may ma ci wala ay kawaram wala wala saabu wala wala saabu desitu saabu bi xam nga luñ koy doyee xam nga néew dafa noppi du yëngu dafa am yu ñu leen ciy defal yoo xamante ne buñ la ko takkee pare nga ni néew bi ne cal nga naan cal ni néew bi ne tekk nga naan tekk dootoo yëngu mooy paa yooyu ngeen di gis ci kër gi rek ñoom xam nga lu leen di doyee kaay añ kaay ndékki kaay reer ñu ne tekk ndeysaan ñu ne waaw i waaw paa bi moom est-ce que li mu nekkee moo ko tey fekk xa dañ koo jekku yooyu la dañ koo jàpp xërëm ko xërëm ko xërëm ko xërëm ko boo xam ne bu dégg ba cëg benn gardien nettali woon na ma benn kër gu mu doon garde nee na boroom kër gi professeur bu mag la ci santé dafa tukki dem Europe jëkkëram indi benn sëriñ ci kër gi sëriñ bi ne ko dama nga jënd benn seq ginaar mu dem jënd ñu sang ginaar gi ba ginaar gi tooy ñu ñëw ba ci digg kër gi ñu gas ba mu xóot ñu suul noonu ginaar gi muy dund bi mu desee benn fan ñu ne comme tey jii la waa ji di ñëw guddi ndaw si ak gardien bi ñëw gas fi ginaar gi nekkoon ñu sulli ko ñu fekk ko muy dund ñu rendi ko toggal ko waa ji reer dégg ngeen li mu wax ginaar googu la waa ji reere keroog loolu nag nga defe ne lañ ca def mu nekk fii une semaine deewul ba waa ji ñibbisi ñu génne ko rey ko toggal ko ko waa ji lekk ko bu ko yàlla musalul fu mu jëm bu ko yàlla dimbaliwul fu mu jëm bu fekkee kooku làqatuwul ci boroomam amul ay azkaar yu muy def ay ñaan yu koy musal ci loolu kooku fu mu jëm dag nan yàlla yërëm looloo tax ab julit la yonent bi ndil ciy ñaan bul ko xeeb parce que nit ñi dañoo alko def yu bon tey du dara ci ñoom loolu tax ñu war a góorgóorlu suñu bopp di jàng asgaar yi ñu yonent bi jox nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man ata arrafan képp ku dem ci seetkat fa saalahu an shay mu laaj ko dara xoolal baat bi shay dara ak no lu mu ko mën a wax rek bi mu ko laajee dara boobu pare fa saddaqahu bi ma yaqul moom waa ji laaj mu dëggal ki mu laaj ki ko tontu ca la mu ko wax yonent bi nee na waa jooju laajte ba ñu wax ko mu dëggal lañ ko wax ne yëg ne lam tuqbal lahu salaat arbaina yawman 40 jours bu jullee yàlla du ko nangu 40 jours lam tuqbal lahu salaat in kaana hadha al xaal in kaana hadhihi xaalu saail fa kayfa bil masul mu ne kenn du ko nangul julli moom mi nga xam ne moom moo laajte kenn du ko nangul julli moom mi laajte kon ki ñu laaj nag ki laaj rek kenn du ko nangul julli 40 jours kon ki ñu laaj nag moom kon nanu bàyyi xel xadis bi te jullit suñ ko nangulee julli 40 jours ñu nanguluñ la ko foo jëm ngay julli 40 jours yàlla nangul la ko fan nga jëm mu ne qaala imaamu nawawi imaam nawawi nee na ak ñeneen ñu dul moom ñu ne maanaahu maanaa hadis bi annahu la thawaaba lahu fiiha day julli ba sonn du ci am tiyaaba mi ngi koy def ne yàlla du ko jël du am tiyaaba chaque jour mu génn yéen yi sax nag dafa ruslu li nit ñi def dafa ruslu ak ruslu ruslu gi mooy man naka la ma yàlla di waxee lii bul ko def ma dem def ko ba pare jàpp utali jàkka ah bul dem ci jabarka bul dem ci seet bul dem ci pita nga dem def ko ba pare langar langar utali jàkka ja nag loolu bu xamante premier tappe dëgg dëgg yéen yi réer la ak ñàkk jom ak ñàkk ak ak ñàkk xam yow kay ba nga jëlee décision xoolal tey rajo la rajo rajo allo waaw salaamaaleykum ñu waaleykum salaam waaw man dama am benn lu may rek ndaw si commencé waaw yow de te nag ñëpp benn la dafa am lu yóotu koo gis fii dafa am lu muy yóotu xanaa man fi ma toog sax am na lu ma yóotu yéen ñi fi ngeen toog am na lu ngeen di yóotu wala wala ngeen di yóotu bu leen dara amul lu ngeen bëgg mooy ko gis ci am na ko amul lu mu yóotu kan Macky Sall sax am na lu mu yóotu wala bon mu nga dafa am yoo xam ne nit ñi dañ cee war a yeewu waaw am na loo yóotu de waaye dafa xaw a dëgër ma ne yomboon du ñëw mu yéen tamit xanaa ci liggéey sa weer de salaire am bu weer dee ñu am na lu mu jootu ndax bu sañoon tey jii tey jii salaire bi dina egg le premier nañ ko ko jox bi ma bi ma la say wala le dix bu am lu mu toog lu mu yor dina am liggéey am na li nga yot li nga yot li nga yot ne dafa xaw a dëgër waaw léegi nag foog am sarax yoo génne nga dégg waa ji waaw waaw waaw dof fii koo fa gis te yootuwul dara kan la benn waaye danaan yor benn téere di ko jaay ay këyit di weex def ci ay bind bind bind billaahi wallahi li ma leen di wax damay giñ mu dul dëgg yàlla na ma yàlla lakk billaahi wallahi wa taalaahi téere bii ku ma ko jox ba nga dem yóbbu ko ci uude mu ëwal la ko bu koy ëw na nga ci boole dërëm billaahi wallahi taalaahi doo tàggale ko dërëm ba ba ngay dee déggu leen wax bi de su ko defee nit ñi ne ah mu ne moo doo doo tàqali ko dërëm ba ba nga dee est-ce que waxul dëgg téere bi yaa ko ëw bi ko yow da nga cee boole dërëm takkal la ko nga takk ko foo dem yaa ana yaa ngi téere bi ana dërëm ba mu ngi ci biir téere bi est-ce que tàqali ko nga ak dërëm gis nga mus mus lu boobu su ko defee nit ñi tànk ko ba pare nag koy jaay benn feuille cent franc xam nga dafa yomb mais imaginer juma bu tas ba pare nga taxaw commencé juma la daan dem juma ñëpp jënd koo gis ci ay jënd naa ci laa ilaha illallah jënd naa ci kii bu ma demee léegi balaa may egg sax laa koy ëwlu nga ëw amu ñi ma ci gisoon ñu jënd ñoom amuñ dara ba léegi maa ngi ñoom rek waaw ñenn ñi jullit yi war nañu ko dépassé ab jullit li ko yonent bi wax su ko doy lan moo koy doy bu def nangam nga dem def ko ba pare bëgg nekk jullit ah yonent bi ne la bu def nangam soo ko defee kenn du la nangu julli nga dem def ko ba pare ne man dinañ ma nangu sama julli langar langar utali jàkka ja da ngay sonal sa bopp waaye julli gi moom kenn nangu ko ndax yonent bee ko wax amoo ci benn tiyaaba loolu la imaam Nawawi wax mu ne wa in kaana du foofu la de mu ne wala budda min hada taawil fi hada alhadis fa inna alulama muttafaquuna ala annahu la yalzam man ata arraf iadatu sala arbaina layla dafa am ñoo xam ne dañu ne waa jooju julli googu nga xam ne kenn du ko nangul da koy baamtuwaat waaye am na ñoo xam ne dañu ne warut moom mu baamtuwaat ko parce que perte na ko ba pare wa fi hada alhadis bokk yi ci hadis bii annahyu an ityaani kahana annahyu tere nañ an ityaani kaahin tere nañ nga dem ci ab njabarkat hadis bi daf ko tere ab jullit bu mu dem ci ab njabarkat wala ab seetkat di seetlu ci moom parce que dañ la ko tere ci diine yenn saa yi nga dégg ku ne non dem naa mais li ma wax dëgg la non waxuñu la du dëgg de dañ ne la bul fa dem léeg-léeg nga dégg ku ne yéen da ngeen ne lii baaxul ñu ne waaw nga ne pourtant man bi ma ko naanee wér naa bi ma ko diwee wér naa bi ma ko takkee wér naa non waxuñu du faj dañ leen anam yi nga fajoo moo araam ni nga ko defee moo baaxul am na beneen yoon boo doon yaar mu wér nga am tiyaaba misaal naan sàngara bu biiram di bedd ko boo naanee sàngara mu dem daal di naan ñaari kaas biir bi sedd ñu ne ko li nga def ne non non wir naa non non du wir gi li nga utiliser moo xaraam loolu lañ la tere jullit yi loolu la war a xam waaw non yéen da ngeen naan njabar amul diw dañ koo njabar mu dee kenn waxul njabar amul de ndax yàlla ci boppam moo wax njabar am na moo wax ci quraan njabarkat waaye yàlla nee na duñ ci lor kenn lu dul mu neex ko moom yàlla am na surtout Baqara kay wax na ko waaye nee na njabarkat yi ak yéeféer lañ la yàlla waxul loolu alxuraan moo ne njabarkat yi ay yéeféer lañ ndax malaaka yi nga xam ne ñoom lañu wax ne ñoo doon jàngale njabar ñi yàlla rëbboon ba wàcce leen balaa ñu daan jàngal kenn dañ naan la wa maa yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur bul weddi kon njabar la kufur la nag fala takfur lañ la wax bul weddi fala takfur kon nañu xam ne ak njabar ak kiifir la jullit du dem ci gisaanekat di seet du dem ci pitaaw ci lu mu mën a doon boo amee aajo demal nga jàpp julli ñaari ràkk soo sujjóotee nga ñaan yàlla ci aajo bi bu dee loo ragal demal ci yàlla nga laqatu ci moom wallahu yaasimuka min annaas qul aawdu bi rabbi falaq mu ngi fi qul aawdu bi rabbi nnaas amana rasul mu ngi fi ayatal kursi fan yi dama amoon doomu feebar léeg-léeg damay jàpp pare préparé di ñëw fi des mu daal seyaatin yi dugg nit ñi commencé naan doo ko yóbbu ku garaaw ku nekk fii ne ku kii ku nekk fële dama leen di reer rek dama nga yóbbu foofu bàyyi dëgër bopp bàyyi dëgër bopp gis nga yow yi lay wax dafa am yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla dimbali dimbali leen man dinaa fi langar langar rek sama doom naan damay dem ci ab xaabaka ak ak njabarkat mais yéen na ngeen feebar xanaa bàyyi leen nii kii dinaa dina wér insha allah ngelaw la rek ñu ni tane na yóbbuñu ko ci benn gisaanekat yóbbuñu ko ci benn njabarkat alxuraan yàlla bii la ñuy jàng di ko tëbli ci moom di ko def ci ndox mi naan jeex na yàlla waxul na alxuraan rek mais nga dem fële takk ay gàllaaj lamak ay béjjén toj ay nen ak ut ay gunóor rek gunóor damay damay doy gunóor ba pare gunóor bi bu ko jàppee da koy rey am na ñuy rey ay muus yu ñuul ak deru xajak lu nekk nit ñi dañ koy def loolu jullit nañ ko moytandiku mbokk yi mu ne li war ab jullit koo xam ne day askanoo lislaam mu wéeral pas-pasam lépp lu la diine ji sant ci lu baax nga def lu mu la tere nga moytandiku mu ne ëpp nag ci nit ñi dem foofu dañuy gis ne ah man gis naa benn borom xam-xam wala nga gis bandi yi saay-saay yi ñëw ne ñun alxuraan la ñuy seete alxuraan du seetukaay boo ñëwee ñu la benn téere téere bi arab lañ ci bind ñu ne la gis nga alxuraan la du alxuraan téere bu ñu bindee arab ak alxuraan bi nga xam ne nit ñi jànguñ téere bi ay talsam ñoo ci nekk xam ngeen talsam ay carré carré yu ñu ay turu jinne ay lim adab yooyu lañ ci def ak ay tur yu kenn xamul da nga ci gis benn tur boo xamante ne mën fees na feuille yi bu ñu amaatee kitaabu tawhid naa leen fi indil naa leen fi indil benn téere boo xam ne benn téere la bu bindaloon benn waay ñu ne waa ji da ngay lal téere bi tëdd téere bi comme darab la tool feuille bi ñu ko bindal yéen gëmu leen ko du gis nga ko internet wanoon naa la dugal naa ko comme mën nga koo laal tëdd ci wala nga tëdd sàng ko sa tànk du feeñ sa bopp du feeñ la fooy bi dool ñu bind ko alxuraan ba mu fees daal daal daal daal daal daal nga defe ne ab jullit dina jël alxuraan di ci tëdd wala mu koy sàngoo loolu est-ce que yonent bi defoon na ko ban saxaaba moo defoon loolu waa ji ko jox bi bu ñu ko jox dafa tiit daar daar la ma woo ni mu ñëwul foo nekk ñëwul xool lii mu ñëw ne ko gis nga lii boo ci tëddee foofu nga jaar rek ñu robi la yàlla yërëm li ëpp ci nit ñi dañuy gis kenn ku def ñu ne boroom xam-xam la ñu dem def ne kooku wala ñu ne bu araamoon diw du ko def ndax diw nga koy def li ëpp déglu leen rajo bi guddi ñëpp ay njabarkat la ñu ngay dégg ñu jël alxuraan di ci njabar waaw naan boobu bu la dara ki lii ngay bind lii ngay wax lee ngay def ñële léeg-léeg ngay lële daanaka léegi alxuraan téere njabar lañ ko def téere njabar lañ def alxuraan ak téere xeex ak téere loolu lañ def alxuraan te loolu taxuloon alxuraan te fexe nañ ba lëkkaloog jinne yi jinne yi di leen nax di leen binduloo ci alxuraan yoo xamante ne jaaduwul du diine ak a bëri waaye sàngam da nga koy bind da nga koy takk da nga koy suul guddi wala nga suul ko nangam da nga koy suul foo xam ne dafa am naaj da nga koy suul foo xam ne kese la yal nañu yàlla defal sutura borom xam-xam yooyu dugg ci liggéey boobu di ci wute alal ñoom ñoo alal jullit yi bare bare bare bare bare bare bare bare jullit yooyu nga xam ne jànguñu seen xam-xam bëriwul seen pas-pas bëriwul wa innahum gayru rasixiina fi ilmi nekkuñ ñu am xam-xam dëgg bal minal juhaal ñoom ñoo réer ñoom ñoo ñëw ci njabarkat yooyu njabarkat yi di leen traceel ñuy def te nañu yàlla dafa sut kon mbokk jullit yi ñaareelu xadis bi mooy xadisu abu hurayra yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man ataa kaahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad rawahu abu daawud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am beneen riwaaya bu mu ne man ata imraa xaaidan aw ata imraa fi duburiha faqad baria bima unzila ala muhammadin yonent bi nee na képp ku ñëw ci benn seetkat nga dëggal ko ca la mu la wax yow weddi nga li yàlla wàcc ci muhammad waa ma ne jullit bu weddi li yàlla wàcc ci muhammad jullit bu ko weddi foo jëm est-ce que jullit nga yonent bi dina képp ku xam ne danga gis jigéen ju am mbaax nga sëy ak moom wala nga jàpp jigéen dem ak sëy ak moom fi muy demee àll ba yonent bi nee na man yonent bi muhammad dañ naa ci yow faqad baria mimma unzila ala muhammad kooku de dañ na ca la yàlla wàcce ci muhammad alayhi salaatu wassalaam mbokk jullit yi déglu leen terme xadis bu baax yonent bi nee na képp ku dem ci seetkat wala gisaanekat wala pettaawkat nga dëggal la mu wax fa saddaqahu bi ma yaqul nga dëggal ay waxam lan la ci teg mu ne faqad kafara bi ma unzila ala muhammad kooku def loolu day weddina li yàlla wàcce ci muhammad laaj bi ma leen di laaj mooy lan la yàlla wàcce ci muhammad kuy tontu bismillah alquran alquran ak sunna boo ko weddee foo jëm bu jullit bañee alquran ak sunna fu mu jëm te tey looloo am lan mooy alquran lan mooy alquran bu ñu waxee ngeen naan alquran ak sunna ñun liñ nekk nag allahu akbar léegi kon yow da ngay jël alquran ak sunna di ko tëkkaleeg yow li nga nekk ñun li ñu nekk nag li mag ñi nekk nag da ngeen bëgg ne du alxuraan ak sunna nañ ko peese nañ ko peese indi li nga wax ñu indi li ñu wax ñu teg ko ci balance bi alxuraan a ngi nii ñu seet lan mooy dëgg rek ñëpp am jàmm waaye duñ ko def ñun lii la ci lii la ñuy dee ñun ñun danañ takk danañ naan danañ sangu danañ diw ndax lii lañ fekk nit ñi di ko def loolu du diine lii lañ fekk suñuy maam di ko def inna wajanna abaana ala umma loolu du diine diine mooy li yàlla wax ak yonentam ku bëgg a mucc nag mooy na jàpp ci loolu ku bëgg a mucc jàppal ci yàlla nee na yonent bi nee na yàlla nee na nga ni anamu ñu ne mi ngi nii yonent bi nee na nga ni anamu ñu ne mi ngi nii nga noppalu waaye yàlla nee na waaye nag yonent bi nee na waaye nag jullit bu fekkee ci yooyu la bëgg a dund diineem du set di nga njabar soo moytuwul wala nga ndëggal njabarkat mbaa nga gisaane ji wala nga dëggal ab gisaanekat mbaa nga seeti wala nga dëggal ab seetkat te loolu boo ko defee yonent bi nee na dañ naa ci yow fes banaa la lii des ci hadis mooy yonent bi nee na képp ku am soxna mu gis baax nga dem sëy ak moom yow pare nga képp ku jël jigéen sëy ak moom fi muy demee àll ba ah yonent bi ne dañ naa ci yow fes dañ nga ci li wàcc yàlla wàcc ci man dañ nga ci kon ñett yooyu def xaram dem ci gisaane kat sëy ak jigéen ju am mbaax ak sëy ak jigéen fi muy demee àll ba sëy dagan na de waaye dafa am fu yàlla joxoñ ne fii la ñuy sëyee ah du dëgg am waxtu aussi yu yonent bi yàlla joxe ne waxtu yooyu la ñuy sëy ak jigéen yàlla dana jigéen bu gisee baax kenn du ko sëy kenn du sëy ak moom ab aaya la wala aaya bi lan la ana ñu mokkal alxuraan jigéen bu gisee baax man aaya moo ne bu gën sëy ak moom déedéet aaya bi ngay indi bul bu ko dagg bul dagaaya bi ci digg bi faatasilu nisaa'i fil mahid wala taqrabuhunna hattaaya yatataharna bu ñu laabee nag faatuhunna min haysu amarakumullah gis nga min haysu amarakumullah barab bi leen yàlla digal na ngeen fa séy ak moom bu ñu setee ñëw leen foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen bu gisee baax isna'u kullu shay illa al-jima' def leen lépp ba mu des sëy jigéen bu gis baax kenn du sëy ak moom di ngeen lekkandoo di ngeen fanaanandoo di ngeen wax mën ngeen tëdd mën ngeen def lu nekk waaye jumba xam ba ci oom bi dafa araam ci yow ci kanam ak ci ginnaaw jumba xam ba ci oomum araam na ci yow nga dugal ci fa sa loxo mën naa woddu sër nag li tàmbalee jumbax bi ba ci óom yi mu woddu sër ba mu dëgg sa loxo nag mën naa tegu ci kaw sëri waaye bu mu dugg ci biir loolu dafa araam beneen bi ñetteel bi araam bi mooy nga sëy ak moom fa muy demee àll ba foofu moom loolu dafa araam léegi nag mbokk jullit yi bu ñu teree góor mu sëy ak jigéen fa muy demee àll ba est-ce que kon dana dagan ci góor mu jël góoru moroomam juutal ko di def loolu fan la gënoon a yay fan la gënoon a rafet ñu tere ko est-ce que kon xel nangu na góor def ko góor beneen bi mooy góor a góor bu ñuy sëy foofu ana ana ana ana ana ana bànneex bi yow kii sa morom la ah lii nekk sa yaram moo nekk ci yaramam fan ngay bànneexu ci moom moo tax ak caay-caay la ak banditisme ak bëgg a yàqu àdduna ak am ñoo xam ne dañ fi ne lu yàlla ne lii la ñu ne du loolu loolu mooy ak xeetu américain américain ak franc-maçonnerie ñooy lu yàlla ne lii la ñu ne du loolu su yàlla ne nañ def nangam rek ñoom xam nga lu ñuy xaar ñu ne l'islam nee na ñu ne non def leen loolu bu leen def loolu def leen leen ñoom loolu lañ bañ a dégg waaw des na tuuti gémmiñ gi ñuy lekkee dinañ ko fàtt xotti feneen ni lekkaa leen lekke fii bu kenn doxe tànk waaw nan doxe ta loxo des na suuti ci fa lañ jëm waaw ilimaan bu jigéen ban fiq la gis naa ci internet benn imaam bu jigéen mu muuru di jiite ay góor ak ñu def bopp neen seetaan naa vidéo bi États-Unis d'Amérique seetaan naa vidéo bi man maa ko seetaan kenn nettali moo ko ilimaan bu jigéen muy jiite ay góor ak ay ñi def bopp neen mu tax ci kanam di jàng di firi bismillahi rahmaani rahim firi ba aaya bi jeex faatee mu jàngul àlla ko firi jigéen kon nag diine daal mooy yàlla wax ak yonentam alayhi salaatu wasalaam loolooy dëgg ab jullit bu bëgg rëcc àdduna rëcc àllaaxira na jàpp ci loolu mooy ta ndiku sàmba nee naag diw nee naag nii lañ wax ak lii lañ fi fekk ak diine luñ fi fekk diine li yàlla wax ak yonent la ñi naan lii la sunu maam yi gëmoon ak lii leen fi fekk dañoo juum diine du luñ fi fekk diine yàlla nee na la yonent bi nee na gis ngeen kon ñaari xadis yaa nga noonu xadis bu njëkk bi nee na ku dem ci seetkat mu wax la dara nga gëm ko 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu ñaareel bi nee na dem ci buxaaba mu wax la dara nga gëm ko weddi nga li yàlla wàcce ci muhammad képp ku sëy ak jigéen ju am mbaax yow yonent bi dañ na ci yow képp ku jël jigéen sëy ak moom fa muy demee àll ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ na ci yow kon loolu mooy dara tey ci ñaan yàlla mu nangul ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu aleykum salaam wa rahmatullah